jërë ngeen jëf mbokki internautes yi ñuy siiw ci chaîne bii di Buzz SN daleen ak jàmm ci xibaar kii di Kaliphone Sall nekk benn activiste bu ñu ràññee loolu fii ni ci Sénégal gannaaw ba nga xamante ne nii sax ba mu génnee prison yagul dara moom mi le def na ay révélation daal di yàq musiba ak mbelengaan kii di Adji Sarr gannaaw ba nga xamante ne ni rek nee na Adji Sarr intérêt la te it intérêt rek lay xool ndaxte ba mu nekkee ci biir prison bi moom mi le di aji Sarr musu ko woo di ko te it it ba mu jénnee wowu ko defu ko dara te it day gis kii di Adji Sarr di dugal ay statut nu mu ko neexee te it day vu ay statut aji Sarr mais Adji Sarr du ko envoyé message waaye rek moom it di Kaliphone Sall nee na ba mu nekkee foofee ca France kii di aji Sarr da ko doon woo mu koy jox ay conseil lu bare bari moom mile nee aji Adji Sarr nag da koo bàyyi waaye loolee lépp nee na moom dina tas li nga xamante ne ni rek moo di dossier bi tey lépp loo xamante ne ni rek Adji Sarr daal ko koy wax ci biir dossier bi loolee dara amu ci amul benn vidéo boo xamante ne ni rek am nañu ko ci leader bu Pastef bii di Ousmane Sonko lépp ay kàcc mu mel rek moom mi di Kalifone Sall daal dina yàq dossier boobee nga xamante ne ni rek moom la ñuy toppee kii di Ousmane Sonko waaye rek nee moom day continuer di nekk apériste waaye rek kii di Adji Sarr loo xamante ne ni rek wax na ko nekkul dëgg ci kii di Ousmane Sonko leneen la ñuy wax kii di MC Niass moom mile kii di Ousmane Sonko daal dina koy wax ci conférence de presse bi mu amal la gannaaw ba nga xamante ne ni rek audition ba amal nañu ko ca suba sax moom mile daal dinay wax ci kii di MC Niass nee na rek MC Niass am na ay audio leer nañ yoo xamante ne ni rek jénne nañu ko ci biir dossier ji saar Ousmane Sonko kon moom mile di Sonko nee rek kii di MC Niass dañu ko war a ndax képp koo xamante ne ni rek takk ci biir dossier bi di di complot i nga xamante ne ni rek daal di ko koy def dañ ko war a woo mu mile di MC Niass gannaaw ba nga xamante ne ni rek nee na dafa bëggoon a récupérer kii di Adji Sarr daal di koy indiwaat ci société bi ndax rek ci li mu nekk ak i caaxaan rek la te loolee lépp kii di Adji Sarr moo daal di ko xamal